deje xamul Modou Tissu dégg nga Modou Tissu jaaykatu tissu bu mag bi nga xamante ne mu ngi ci marché ten jigéen avenue général de Gaulle mooy solal jéggi di solal njagamaar gi di solal jànq gi di solal gune yu góor ñi Modou Tissu ku mu jaayul tissu li nga sol baaxul la ah, ma ne gone gaa moo moom dëkk maam Kumba Bang bi ñu koy jéem te mënuñu sax bu ñu jaaxlee ca Modou la ñu jëm taaru jigéen ñi ca Modou Tissu jasineer yu dëgër yu baax yi ca Modou Tissu mu ngi ci marché ten jigéen avenue général de Gaulle di jaay en gros ak détail Modou Tissu tissu loolu na mu ci tissu mu toggantu ko moodu tissu moom la Kaolack di waxtaanee ndakaaru di ko waxtaanee bitim réew di ko waxtaanee mu ne ndar laa bëgg ndar laa fonk lu ma am ndar laa koy jox moo tax ma indil leen tissu yu baax yi ey li ci tendance tabaski ëpp na fépp foo mënti nekk loo soxla ci tissu mu jaay la ko en ligne moo xam ci whatsapp ak yeneen xarale yu bees yi am na fi ay bazin riche yu baax bazin gold yaa ngi fi ay marigay original bazin riche sagesse marigay cinq mètres boré de marigay boré de marigay paquet ak brodé cristal val brodé yaa ngi fii ay til yu tok choix nak ñoy bombu ñun la lo ci bëgg bo fi ñëwé ñu jox la ay étaguette am nañu fila fil yu góor ñi fep fu ngeen jaar génn tissu ci ngeen ko téléphone 77 943 98 05 76 183 23 25 Modou job tissu lo xar ci xol ba tissu rek nga fay fekk ak xam lu baax na borom